mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziyaare ci subak dimanche ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jàmm yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit waaye sàmmal ñu suñu imaan suñu ngëm bam bañ a rëcc ba muy bëgg suñun saa su ne suñu borom ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu taqale ak jàngoro bii nga xam ni jaaxal nañu te jaaxalu la ku mu dal yàlla na nga fëgg boppam woyofal yaramam ba mu dellu ci sagoom ku mu dalagul suñu borom yàlla na nga ko dimbali ba mu bañ koo dal ku mu dal ba nga ñàkk sa bakkan yow suñu borom ci sag mbaax sag yërmande yàlla na nga ko jéggal te yërëm ko yóbbal tey bi macha allah day xaw mel ni continuité la sax ak bu samd bi c'est-à-dire dafa wax ni la classe c'est quand vous avez beaucoup de choses à dire mais que vous choisissez de garder le silence devant le ridicule loolu wax na dëgg loo am solo gis nga nit ñi li ñuy defee ni mooy classe man dama am classe dafa am maanaa naan ni may solo ku ko gis xam ne ma am classe sama am maanaa sama classe mu ngi feeñ ci sama dëkkin mu ngi feeñ ci sama solo mu ngi feeñ sama lii <laughs> nee na déedéet nee na bul nax sa bopp nee na loolu taxul ñu naan classe de nee bu ñuy wax ne nit ki am na classe nit ki am na personnalité nit ki am na dignité nee na mu lay wan kat moo am loolu mat ci boppam doon nit ku mat am maanaa ci boppam dëgg mooy nee na mooy ki nga xamante ni day fekk day xam ni am na lu baree bari lu mu war a wax mu leer ko ne lii yëpp war na ko wax mais mu préféré moom maye noppi bi rek noppi jël noppi maye ko maanaam bañ di wax euh, bañ a ci yu doyee di yu solo yu mu bañ ci di dugg daal na préféré tëj gémmiñam noppi nee na kooku mooy ki am classe ki nga xam ne du ay détails lay gérer du foo ko fekk lu ñor mu wax lu ñorul mu wax nee na kooku moo am classe. parce que aussi bari wax amul solo de wax li nga war a wax rek moo am solo te li nga war a wax su jeexee noppi moo ca tegu waaye koo xamante ne lu ne nga wax lu ne nga wax li muy jur mooy wolof nee na ku miin sa xulloo sax dalay yëpp gis na borom kër même boo nekkee sa soxna lu ñor nga wax lu ñorul nga wax wax ji bari lool day dem ba wax dëgg yàlla moom dootul sax tenir en compte sa mbir mooma dootul ko jox benn maanaa ak keneen ku mën a doon même ki ngay li ki liggéeyal nga xam ne daf la war a respecté nga respecté ko sa wax bu baree ci moom dootul la faale nit ki noonu lu mu mën a doon kon nit da ngay jéem a wàññi sa wax di wax farata bu farata jeexee nga noppi waaye bul nangu ku la poussé ci nga doon wax xat wax rek di wax lu ñor ak lu ñorul te wax ju bari moom ñaare li muy def ay ci ay erreur ak i dégâts moo ëpp lu muy def ci ay njariñ ndax wax waxkat ba daan wax naan musuma noppi ba réccu ko waaye yàgg naa réccu wax ju bari ju ma wax kon nag wax moom loo ko gën a mën a wàññee rek mooy la gën te mooy la am solo nit ñi nag boo leen toppee moom di nga wax ba jaawale jaawale la ak waxkat bul ko nangul kenn boo waree wax waxal bu sa farata jeexee noppil yàlla nañ yàlla may xel mu rafet noonu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.